Sénélec société nationale d'électricité bu Sénégal ak 3MD ñoo leen di may seen revue de presse jàngeen jëf léegi leer na nañ fan la nguur gi yees gi jëm ak ñun yéene yu bëri xëy tey ci référentiel bu yees bi ñeel politique publique yi ci Sénégal réew mi quotidien duppee ko recette muy ndug li nga xamante ne moom la Diomaye ak Sonko daa di indi laskanu Sénégal nguur gi daa di fësal ay pexe yi nga xamante ne ci la war a jaar ngir sukkali Sénégal ba faw te mu war a sukkandiku kon ci ñeent ci ay ay axe lii moo tax le quotidien ne ko projet baa ngi nii Diomaye ak Sonko démb la ñu daal di fësal li nga xamante ne moom mooy seen gis-gis ngir Sénégal fi ak atum 2050 yéene kaay bi ne ñu fas yéene nañoo yëkkati lu ëpp fukk ak juróom-ñetti junni milliards ci suñu koppar fii ci biir réew mi projet bi di Sénégal horizon 2050 Walf Quotidien ne lu ñu doon xaar mujj naa yegsi muy potion magique bi nga xamante ne nguur gi jëmmal na ko ni ki démb secteur privé local bi nag di ci xaar boppam bu baax a baax projet de campagne électorale bi nga xamante ne mujj gi Ousmane Sonko ak Diomaye daal nañ koy jëmmal Diomaye kay démb ab guy la daal di saxal bu ñu sukkandikoo ci bis bi jour mi adduy tamit ci projet Sénégal 2050 bi nga xamante ne démb lañu ko daal di fësal kàddug njiitu réew mi ci bi nekkoon mu ngiy waajal ab jëm ci wàllub souveraineté économique fexe tamit ba xeex li nga xamante ne moom moo jëm ci wàllub ger ci biir yeneekaay bi tamit Ousmane Sonko di ci addu nekkoon dafa am fu réew mi di tollu lépp lu fi nekk ni ay jafe-jafe faaw ñu xool nu ko fiy jëlee yéenekaay bi dikkaat tamit ci ki nga xamante ne moom mooy Victor Ndiaye mi bokk ci ñi nga xamante ne ñoo xaatim projet bi ci boppam moom li mu laale woon ak PSE bi tamit dikk nañ ci bu baax a baax waaye li ci Thierno Alassane Sall gis mooy Diomaye ak Sonko daal dafa mel ni ñuy sàkku ci askanu Sénégal ñu daal di toog xaar ba ñaar fukki at ak juróom njiitu réew mi Bassirou Diomaye Faye ci Sud Quotidien mi fësal vision ngir Sénégal 2050 liiwundu gis-gis gi ak fan la ci mën a sukkandikoo loolu yëpp wane ni kon Sénégal 2050 jamono ji ci kerub guy gi nga xamante ne moom la premier ministre bi daal di fësal ni ki démb ci la nekk vision Sénégal 2050 boobu ci Vox li tamit indi nañ ci lépp li nga xamante ne moo ko wund ni ay chiffres ci wàllu koppar gi koy jëmal waaye tamit lu ñu ciy xaar ci croissance ba ci sax PIB bi par habitant loolu yëpp démb lañu ko leeral mu nekk gis-gis gu leer te askanu Sénégal war cee dundee yaakaar bu ñu sukkandekoo ci les échos mu ni fësalee kàddu ko premier ministre Ousmane Sonko waaye tamit njiiti réew bi Bassirou Diomaye vision 2050 bu Bassirou Diomaye Faye ak Ousmane Sonko Le Soleil yéeni kaay indi na ci tamit ay leeral maanaam lépp lu wund projet bi ci boppam nee ñu sax boo jëlee mennum secteur tourisme rek lu toll ci juróomi téeméeri junniy xëy lañ ci war a am juróom benn corridor routier ak ferroviaire tamit daañu ko ci tabax soxla si nag ci wàllu financement pneu fukk ak juróom-ñetti junni milliards ci suñu koppar croissance économique bi nag war ci toll ci 6 virgule 5 jàpp 7 pour cent diggante 2025 ak 2029 mu nekk projet bu rëy waaye enquête quotidienne nee na tamit li ci ñuul bëri na yéenekaay bi dénk na ci sax ay kàddu ñi nga xamante ne seen xam-xam màcc na ci wàllu koom muy Moubarak Lo ak Maysa baabu ku ci nekk ak sa gis-gis gannaaw économiste yooyee opposition bi mu mel ni kon yëf yi dalul bu baax seen xel naka noonu it société civile yéenekaay bi di fësal ci biir naataalu ñi nga xamante ne kon ñoo liggéey ci projet bi muy Victor Ndiaye Souleymane Diallo ak kii di Cheikh Modou Cham kii di Jéegi Diop moom réew mi quotidien mu contrôle judiciaire waaye li ko jiitu yéenekaay groupe Rewmi Network bi dañu xamal ni moom responsable APR bi fay na ab caution les échos dëggal ko ne Jéggi Diop ak ñi mu àndal moom génne nañu koppar gu wextal laata ñuy am seen liberté naka la amee liberté gi ak li mu dund ci gardaa yi moom Jéggi Diop mu ngi koy nettali ci biir l'Observateur ne kon expérience bi mu am ñaanalul kenn mu daal di dund lu tar li ñuy dund lu tar kay muy askan wi dëkkee ci Kédougou ak li ko Sénégal daanaka moo yóbbu seen dëkkuwaay mu nekk lu métti ci ñoom ba tax ci biir libération OMVS mel ni kay artu ndox mi ak i lorangeem 24 heures di ñu xamal ni kon ba yëfi xewee jëwriñ ju ñu dénk kaaraange biir réew mi di général Jean Baptiste Tine ma nga woon ca diwaan ba nekkoon daañu leen yóbbul ay ndimbal rawatina ci seen wàllub dund gannaaw sax ndimbal gi la Soleil yéenekaay dañu xamal ni njiitu réew mi Bassirou Diomaye Faye ñu ngi koy xaarandi ca Kédougou ak li ko wër gi ci